wax benn anecdote boo xam ne dundu nga ko ci sa kenn ku la bëgg ci yonent bi sallallahu alayhi defal la teraanga wala loo xam ne daal marqué na la loo xam ne dootoo ko fàtte. waaw am na benn boo xam ne de moom léeg-léeg dinaa koy nettali duma koy fàtte lu bari. Mhm. benn gàmm bu ma doon def marché bu Thiès waaje génn na àdduna yal na yàlla xaree aljana. Mhm. fi may gàmm ba mu yàgg boobu maa ngi woon ci Cheikh Abdoul Qadir Jeylaani ci laa nekkoon di ci wax. maa nga woon ci ay waqaftu bi baabillaahi waxdi muwahidan fa nu diitu fa jaddi rasulillahi taat nekk ci Abdul Xaadir Jilaani maa ngi gis benn waay boobu yàgg na mu ngi toog di jooy fi mu toog ma nekk ci biir nag bu baax waykat baa ngi way maa ngi firi macha allah ñàkk tooy xépp di yuuxu waa ji di jóg di ma jox xaalis saa bu ñëwee jox ma xaalis mu ngi jooy jooy yu metti ba yàgg xam naa ni mu jóg ñëw si ci man bi muy ñëw ci man pour man daf may joxaat xaalis mais bi mu ñëwee kur fañ la ma dóor bi ma dóoree kur fañ bi man xaw naa sax daanu noonu micro bi wadd bi micro bi waddoo man fa laa bàyyi micro bi waa ji bi ma dóoree daal li ma yëg mu wax ko mooy bala nga ñoo rey la bala nga ñoo rey ñu la laa génne boobu sama oto mu nga gaaree ca gannaaw mais na sama xarit bu ma àndaloon moom it génn àdduna Pape Demba Dieng yàlla na ko yàlla yërëm ci moom laa ñëw it mu génne ni ma lan la lan la ba gaañu wo ba gaañu wo ba gaañu wo ndax gis na dóor bi ma ne ko tijji loto bi mu tijji man ko nañ daw gaaw foofa la gàmmu gayam boobu moom fa tabaarakallaahu bariwul lu ma koy fàtte waaye it ma xam ne loolu cofeel la woon boo xamante ni kooku ko doon def joxe na bala mu amoon jeex xamatul fu mu nekk kontaanteem moo taxoon fa tabaarakallaahu mu def loolu ñu ñaanal ko yàlla na ko yàlla wanale ak Cheikh Abdou Khadir Jeylaani ñaanal yàlla Pape Demba mama rawale kera moom it yàlla na ko yàlla xaree aljana loolu daal lu ñuy fàttaliku ci gàmmu la bari na nag léeg-léeg ñu jànkonteeg yu baree baree baree bari macha allah ci gàmmu gàmmu nañu ba mu yàgg fa tabaarakallaahu nit ñëw ñu ma yéeg ca kaw taabal ja sécurité bi ñëw wër taabal ji taxaw pour ñu bañ ñu laal parce que bëgguma gàmmu gi yàqu te kii di songu xam naa ne bu ma continuer dina ma gaañ ndax nekkatu fi mais dama yéeg ci kaw taabal ji ñu wër taabal ji encercler ko ma continuer di gàmmu moom ñu jël ko yóbbu ko yooyu yëpp am na macha allah def nañu gàmmu tamit ci ab dëkk man ak ñoom Baye El Hadji Ndiaga Ndiaye fi ma nekke ci yonent bi salaay salaam am ku yuuxu daanu ba ñu xëyee loolu it macha allah metti nañu torop donte lee nag lu neex la ba ñu xëyee ñu woo ñu téléphone ni ki daanu woon biig ci gàmmu gi dafa mujj génn àdduna foofu la jaare loolu suñu xel dal na ci ke ni mu nga àjjana ndax fa mu deewee waaye neexuñu ndax bu ñu sañoon tamit nag dañuy gàmmu nit ñi di bég di defaru di jub waaye kenn du ci dee loolu it fa tabaarakallaahu dinañuy marqué ci gàmmu lu baree bari ñu ñaanal ñooñu ñëpp nga xam ne génn nañ ci àdduna yàlla na leen yàlla xare aljana ñaan gàmmu yii ñuy def yàlla buñ ci gis suñu bopp mm-hmm. incha allahu xam naa nag yàggatul mm-hmm. kër diine yi nga maîtriser yëpp koo laal dina kontaan mm-hmm. kër diine